asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di préciser rek ne damay jël euh, kàddu pour dalal leen parce que dafa am ay information yoo xam ne suñu informaticien moom la leen nar wan pour ngeen xam affaire yi nan la demee conseil constitutionnel bu boobaa nag ci laay door a jëlaat kàddu pour ñëw def sama waxtaan ak yéen mais may rafetlu rek salle bi ni mu feesee ak ay journalistes di leen wax aussi démarche bi nga xam ne moom laa am ak sama frère le président Bougane Gueye ak suñu sœur la président Aminata Touré ak yeneen candidats yi nga xam ne ñoo fi nekk. parce que boo leen seetloo le président Bougane dafa def affiche na dafay def conférence de presse tey à 16h la coalition Abdourahmane 2024 def affiche na dafay def conférence de presse tey à 17h. ñu toog ñun ñaar ñu xool suñu bopp ne lii warul mën a nekk affaire bi du compétition affaire bi du kuñ mooy ëpp journaliste nañu boole suñuy doole yombalal askan bi liggéey et puis yéen journalistes yi aussi ñu yombalal leen liggéey bi ba ngeen xam ne doo leen nekk di daw d'un point A à un B loolu nag dama ko doon souligner pour ñëpp xam ne ñun tey fii ñu toll ci opposition ci logique gu unité la ñu nekk si logique gu xeex la ñu nekk si logique bu fexe li nga xam ne moo fi nekk joge fi ci lu ñu nekk du ma guddal ab coalition Abdourahmane 2024 am na ay alliés am na ñu fi nekkul am na ñu fi nekk ki nga xam ne maa ngi jàkkaarlook moom mooy Baye Salamar nga xam ne c'est le président de l'alliance des écologistes ma lay remercier ni nga ñëwee ak sa délégation léegi avec votre permission damay bàyyi monsieur Karim Ly mu defal leen une petite projection du gudd jox leen yoo xam ne mooy wane ne le candidat Abdourahmane Diouf bi ngeen defee yéen ñëpp tiit ne il a été recalé il n'est pas recalé man je considère tey jusqu'à preuve du contraire que le candidat Abdourahmane Diouf est encore candidat parce que le candidat Abdourahmane Diouf a validé quarante-six mille parrains te loolu dinaa ci ñëwaat cas yi fi nekk ko ci jël bu ñu la defaloon démonstration technique di nga xam ne dañu la sàcc ay parrain te say parrain bu ñu la ko delloo di nga am lu ëpp les quarante quatre mille deux cent trente et un mi nga xam ne ñoom la ñuy laaj donc ñii fi toog tey ce sont pas des candidats recalés ce soo des candidats spoliés candidats yoo xam ne dañu leen dox dañu dox fekk leen ñuy taxaw ñu jël la nga xam ne ñoom ñoo ko moom dugal ko foo xam ne ñun xamuñu ko xeex boobu nag jëleen ci xeex mais dama leen di bàyyi rek ñu def démonstration parce que yuuxu bi yëpp jaru ko bu ñu leen wanee fiñ ñu jaar ñu di lañ leen wax après fan lañ leen di jaar ba ñoom di jóge jërëjëf bari à l'heure de la digitalisation le régime du président Macky fexe na ba képp ku nekk ci àdduna da ngay reetaan Sénégal actuellement parce que da nga naan MS DOS ba ñu commencé jàngi informatique dans les années quatre-vingt-dix sax maîtrise loolu la ñu conseil constitutionnel wan ci élection bu am doole comme élection président de la république dinaa def juste quelques commentaires man maa ngi commencé ak depuis ba ñu annoncé deux mille vingt trois bi système parrainage premier jour laa ñëw xam nga nag man des fois dama am benn défaut. bu ma waree ñëw politique dama fay nekk di jaay affaire expert ma ñëw ci sama analyse expert may jéem a wax problème yi nga xam ne moo nekk ci parrainage bi wax na leen un parrainage bi dafa waroon optionnel bu dee yéen dialogue ngeen ba d'accord ne parrainage des élus dafay am parrainage citoyen am da ngeen waroon établir ci loi bi li ñuy woowee pré parrainage maanaam ku nekk nga déterminer na man damay jël député damay jël ay élu wala damay jël citoyen mais ba ma ci am too dañ ma rey defal ma les gros titres des journaux chroniqueurs yëpp di ñu reetaan naan Abdourahmane dafa dugg ci terrain bi parrainage yi dafa dëgër mënul am parrain ça n'a jamais été le cas parce que loolu bañ koy wax fekk dugguma sax ci terrain parrainage dama doon àttu deuxième bi ma ne leen fichier miroir la maanaam boo demee di wuti parrainage li tax nga mën a xam sa parrainage baax na wala baaxul mooy saytu bi nga xam ne moom lañ lay tegal pour boo xoolee saytu bi di nga xam kii ngay dugal xàmmee nga ko wala xàmmee wala ko donc yow en tant que candidat da ngay yor sa fiche parrainage fiche fichier électoral bi nekk ci gannaaw ngay def sa ay comparaison Sénégal nag tardé foofu lool parce que avant ci suñu loi dañu ne bu ñu demee ba xam les candidats officiels après la publication des résultats officiels par le conseil constitutionnel ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi ñooñu la ñuy jox le fichier électoral loolu moo mës a nekk ci loi Sénégal mais ça fait deux élections présidentielles affaire yi changé te gouvernement du Sénégal changé wul li nga xam ne moo ci nekk li changé mooy effectivement avant ba da ngay soxla fichier électoral boo nekkee candidat pour préparer sa élection mais puisque maintenant parrainage dafa bokk ci processus électoral te parrainage boobu 2018 lañ ko ci indi dañu waroon changer loi bi ne jour bi nga xam ne ci la parrainage bi commencé ci la ñu war a jox candidat yi le fichier électoral donc c'est un manquement du gouvernement ba tax defuñu ko ci suñu ay loi mu nekk di ñu porter préjudice da ngay sax gis des yoo xam ne dañu naan laan ay expert lañ ñoom ci élection mais ils se contentent de te dire li mu wax mooy bu ñu amee la liste officielle des candidats or ci processus su nekk candidat dañu ci boole 4 à 5 mois supplémentaires yoo xam ni pour nga nekk candidat il faut nga am fichier loolu gis ngeen problème yi nga xam ne moom la ñu indi deuxièmement ma waxoon problème mu bi logiciel bi Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne Afrique xamee lañu leen ay informaticiens yu xare recensement population bi passé man sama kër lañ ma fekk ay xale yu ndaw tablette lañu yor defal ma enquête ba mu jeex te génn ñu fooy génn ñu këyit donc gouvernement Sénégal bu mënee organiser recensement bu mel noonu sur dix-huit millions de personnes wax na mën a teg un système de parrainage avec un logiciel boo xam ne ñëpp dañuy xam lu nekk ci biir logiciel ba tey lii kenn xamu ko artu woon naa ci parce que nos amis informaticiens dañuy expliquer que ne logiciel bi mën nañ ko paramétrer pour mu duub maanaam mu xaw a yoromal wala mu xaw a dëgëral wala mu agressif suñu mandataire yi ko fi wax sànq génn nañ lu xaw a mel noonu ne bi ñu demee ba mu des ñaata candidat candidat yooyu ñooy diw ak diw ak diw toog nañ cinq minutes affaire bi kenn diggiw ko kenn woowul kenn bi ñu duggee ñu ne leen machine bi dafay bëgg may rappeler et je prends tous les mandataires à témoin que dès le premier jour bi ñu demee di déposer clé yi la machine l'ordinateur du grand conseil constitutionnel du Sénégal dafa amoon virus je sais pas yéen ndegam xaw ma ndegam bàyyi ngeen xel ci loolu ñi dem le premier jour boo ñëwee dugal sa clé clé bu koy copier dafay génn fichier bi deux fois benn bi dafay am point benn bi du am point loolu c'est le b.a.-ba de l'informatique nga xam ne même sama genre yu ñu laa ci informatique yi xam nañ ko donc dëkk bu toy ni Sénégal dëkk bu am doyee ni Sénégal yàgg voté yàgg organiser élection présidentielle machine ordinateur bi nekk conseil constitutionnel nga xam ne benn machine boobu moom mooy déterminer avenir bu Sénégal machine boobu dafa am virus man nii as Diouf sama machine amul virus yow sa machine amul virus machine bu Bougane Gueye Dany amul virus man foofu laa xam ne problème yi commencé na am ñu def ci loi bi ne léegi booy ñëw da ngay ànd ak sa informaticien beneen problème boo xam ne ñu bëri waxuñu ci mais mu ngi commencé génne dañu la wax ne boo ñëwee ak sa clé USB nga joxe déjà clé USB dafa xew loolu xale yi ñoo ma ko gën a xam mais boo ñëwee nga joxe sa clé USB ñun troisième jour bi la ci rendre compte informaticien conseil constitutionnel dafay jël li nekk sa clé USB mu copier ko ci ordinateur conseil constitutionnel je sais pas da nga mbàyyi yéen ci xel waa léegi ñu ne la yow dañu bëgg secret dañu bëgg clé bi nga xam ne dama la ko jox kenn waru ko laal ba boo ma ko joxee ba pare dañ koy jël dugal ko ci enveloppe sale ko nga signé ko ñu tëj ko kenn dootu ko laal waaw boo ñëwee joxe clé boobu l' informaticien conseil constitutionnel jël ko copier ko ci ordinateur waa léegi sale boobu moom lu muy jariñ amul benn njariñ boo demee tey conseil constitutionnel képp ku fa jaar dugal sa clé l' de tes parrains ñu ngi fa xam nañ ko gis nañ ko avant ngay ñëwaat ñu lay teg et ils ne peuvent pas parce que on l'a constaté c' est la vérité à partir de ce moment nag guruxlu mën na ci dugg ñun bi ñu jàllulee premier tour kenn dégguñu ci dara est-ce que xam ngeen ne Mimi ñun comme yow ñun dix mille identifiés non identifiés dans le fichier en premier tour dix mille mais communiqué wuñ sax waxuñu ci tirage au sort bi dinaa ci ñëwaat rapidement ñun coalition Abdourahmane Diouf suñu situation malgré les dix mille non identifiés dans le fichier waxuma sax bu ñu amoon place bu baax parce que ñun ñooy soixante-quatorzième ca gannaaw lañ ne ba cinquantième place parce que ñun xam nañ leen lañu amal doublon ba cinquantième place bu ñu fa nekkoon ñun dañuy jàll premier tour malgré les dix mille non identifiés sur le fichier ñu bàyyi dem dem deuxième tour deuxième tour ñu ne ñu am ngeen dix-huit mille quatre cent un doublon dix-huit mille quatre cent un doublon yooyu puisque trente mille et quelques nga validé da nga ci war a indi treize mille sept cent quatre-vingt-douze yoo xam ne boo ko matalee matal nga les quarante quatre mille deux cent trente et un bi tax nga jàll ñun nag ñu nekk ci di liggéey xam nañ ni on a un gap de quatre mille six cent dix-huit mille quatre cent un yi ñuy déposé bu ci amee lu ëpp quatre mille six cent yu baaxul rek ñun on est mort daanu nañ ñu liggéey nag parce que Sénégal ay nit ñu xarañ ñoo fi nekk ñu ne mais ñun yan problème lañ amoon premier tour dañ amoon problème mu non identifié dans le fichier dix mille dañ amoon problème mu doublon problème mu doublon mooy loo xam ne li nga ci mën moom bariwul tirage au sort moo la ci mën a génn ñu ne nan la ñuy régler problème doublon yooyu dañuy recommencer waat suñu parenage à zéro maanaam stock bi ñu amoon ak lépp lu ñu amoon dañu ko jël ñu teg ko de côté commencer waat un parrainage de proximité à zéro moo tax bu ma déggee kuy wax naa ñi ñu téye parrainage amuñu représentativité wala ay nay politique lañu dama naan ñi xamuñu li ñuy wax parce que nag ak que ñun ñoo xam fu ñuy jëlee parrain ak que ñun ñoo liggéey pour am parrain ñun ci deuxième tour bi en quatre jours amaat nañ cinquante huit mille neuf cent soixante quinze parrains yi nga xam ne moom la ñu déposé au premier te dañu dem pour régler le deuxième problème mooy non identifié. ñu liggéey ñu ne mais non identifié sur le fichier fan la mën a jógee ci problème de saisie parce que boo bindee El Hadj El ak Hadj amul espace yow nga def ci espace mu ne la baaxul ñu ne ñun dootuñu dugg ci loolu ñu identifier problème boobu ñu ne problème boobu fan la jógee ci fiche yi nga xam ne moom lañ ñuy remonter par exemple am nañ ku nekk Kédougou def na parrainage am recopier na ko ci fiche yi fiche yi la ñuy yónnee bu ñëwee suñu centre de saisie bi nga xam ne Rufisque la nekkoon xale yi di ko transcrire léegi loxo yu bari yooyu carte d'identité bi di jaar ba ñu koy transcrire erreur matérielle yu bari foofu la jógee ñu diagnostiqué ko ñu ne suñu stratégie deuxième tour du ñu remplir fiche door ko def ci ordinateur dañuy def ci ordinateur door ko def ci fiche bi moo tax les dix huit mille quatre cent un parrains yu ñu jox conseil constitutionnel au deuxième tour yépp source directe bi ci carte d'identité bi lañ ko jël recopié wu ko fenn carte d'identité bi la ñuy téye dugal ko am logiciel boo xam ne boo dugalee élément yépp ba yépp sotti mënoo juum ci prénom mënoo jum ci nom fi nga mën a juumee mooy discriminant mooy date d'expiration bi ñu def logiciel boo xam ne encore une Sénégal dafa am ay génie informatique ñu defar logiciel boo xam ni ñun bu ñuy inscrire discriminant bi fa nga xam ne fa le risque d'erreur bi nekk da koy dugal une fois à la mu laaj la nga dugalaat ko deux fois pour confirmer mais deuxième fois bi ñu koy dugal même boo ko copier coller du marché parce que dafa lay permettre même nit bu dee juum nga première fois doo juum deuxième fois ñu ne du ñu yem foofu dañuy def double checking xale yi nekk Rufisque ñoom ñooy dugal ci fichier bi une fois deux fois ñu ñi nekk Dakar Mermoz def contrôle bi une fois deux fois donc ñun bi ñuy déposé suñu dix mille 18 on am nañ ay certitude xam nañ lépp loo xam ne erreur matérielle la mënuñu daaneel ci deuxième tour bi la preuve dix mille dix mille erreur matérielle la ñu am premier tour deuxième tour ci li ñu leen wan ni sur les 18 401 200 erreurs matériel lañ ci am 200 dañoo jógee 10 000 wàcc ba 200 nga xam ne liggéey nañ ci 4 jours. mu des doublon yi ça ne dépendait pas de nous deuxième tour on était vingtième sur vingt trois waaye malgré vingtième sur vingt trois bi résultat bi génnee deux mille doublons lañu am xam nga def nañ donc des performances exceptionnelles léegi boo amee deux mille doublons ak deux cent erreurs matérielles mu dindi ko ci dix-huit mille quatre cent un yaa ngi seize mille yoo xam ne validé loolu kenn mënu ci dara loolu lañ leen démontrer sànq entre ce que j'appelle les A de la honte ñu jël ko injecté ko suñu logiciel ñu wan leen ne loolu mënul nekk erreur entre ces A de la honte ak ces dates yi nga xam ne dañ leen interverti parce que lii Karim précisé wul mooy fii ñëpp ñu jàng xam nañ ko date ci français da ngay def 3 12 trois en français bu dee anglais day def 12 3 2023. ñu jël suñu ay date yu dul jeex des milliers transposé ko du français vers l'anglais man xaw ma woon ne waa conseil constitutionnel déggee nañ noonu anglais mais Karim vous l'a dit un crime n'est jamais parfait xam nga boo defoon 3 12 2008 la vraie date nekk 3 11 2008 nga ne erreur bi ci yow la mais ñun erreur bi toujours boo defee 3 mille 2008 dañ lay corriger ne la ñoom dañuy dugal. 12 3 2008 nga def 6 7 2007 dañ naan 7 6 2007 loolu nit bu yokk toog yor bi nga fëy mënu ko léegi nag ils ont réussi à travers les A de la honte ak ni ñu intervertire date yi jële ko ci français yóbbu ko ci anglais loolu moo ñu defal les mille erreurs matériel yi ñuy woowee waaye ñun xanaa même bu ñu cuune woon di saisir xanaa date yëpp soit dañuy def date yëpp français wala ñu def date yëpp anglais mais bi ñu jël 6000 dates yi nga xam ne moo ñuy éliminer def ko anglais bàyyi date en français amul sens te li koy wane boo demee ci décision du 24 novembre 2023 xam nga code électoral bi mooy organiser parrainage mais conseil constitutionnel bu mu ñëwee daf ko organiser waat à travers sa décision du 24 novembre 2023 décision yooyu am na yu ci baax am na yu ci baaxul boo leen demee ci article deux décision boobu dernière phrase ñoom ñoo ne ku fi indi une clé électronique bu ñu altéré clé électronique bu ñu altéré ñoom dañu koy bind ci seen procès verbal jox la maanaam ci lu simple boo fa indee clé électronique boo xam ne baaxul Malick déglu bu baax li ma lay wax ñoom dañuy bind ci procès verbal bi ñu lay jox ne la yow clé bi nga fi indi sa rek bu ñu ko ci bindul ci procès verbal bi ba dugg ba nga ñëw sa jour contrôle mooy ñoom nangu nañ ne yow clé bu baax nga leen jox te la clé n'a pas été altérée donc à partir du moment yow franchir nga jour bi nga ñëw déposé c'est-à-dire que ñoom nangu nañ c'est un aveu que ne clé bu baax nga leen jox Malick maa la may boobu après nga fay frais de consultation <laughs> donc ñun partant de cela ñu jox leen clé ñu nangu ne clé bu baax lañ leen jox altéré wu waaw ñu ñëw la lendemain di di di contrôler gis ngeen li ñu leen wan xam ngeen ne li ñu leen wan nit moo ko mën a bind donc la première conclusion qu'il faut en tirer mooy erreur bi ci ñoom la def est nag ñoom ñoo ko tey des ko est-ce que seen machine moo bëggee est-ce virus la le fait est que bi ci ñoom la def te Mamadou Badio Camara fa mu toog ne mooy président conseil constitutionnel bu gisee lii ñu ko wan tey bu tëddee du nelaw parce que nag lii ay góor ñoo ko liggéey des années et des années de travail di yéeg di jóg gouvernement di lay xeex ngay jóg di daal ànd ak ay xale ay jigéen ay mag ay ndaw nekk parti d'opposition amoo moyen sama xale yi doon saisir dama leen jox ay mus musu laa commencé après dem ci ganaar après ci caakiri laa mujjee ak ay sobi ak laa mujjee ak ñoom parce que dama dem ba amatuma leen lu ma leen di jox waaye looy gën a néewle ñoom ñu lay wan gën a wan na ñoom liggéey bi dañ ko gëm ñooñu boo leen defee coup d'état électronique bu mel nii teg ko ci sa taskalu bakket tu es en train de trahir jeunesse et tu es en train de trahir ta man nangu naa dem compétition ñu daaneel ñun bi ñu demee élection législative dóor yu métti lañu fi dóor coalition ba ma bokkoon kenn déggu kenn déggu ma le peuple a toujours raison bi ñu fi demee nii premier tour gis nañ erreur yi fi am ñëpp di ci wax mais on s'est dit le bénéfice du doute on donne le bénéfice du doute mais nag la présomption d'innocence da nga koy établir jusqu'à ce que nga gis ni kii def na walla deful et ce qu'ils nous ont fait là coup d'état man fi may terminer man day ci loolu laa leen di woo man day Abdourahmane Diouf Ngoné Saliou yoo laay waxal ku mu fi bindal Abdourahmane Diouf recalé baalu ma la ko parce que man kenn recalé wu parce que j'apporte la preuve devant l'histoire devant les hommes devant la nation entière sénégalaise que suñu coalition lii ñu indi validé nañ quarante six mille parrains maa ngi ñëw j'étais en train de terminer léegi nag puisque dama jàppale man récolté wuñu ma man dama ciy dem ci combat bi te foofu laa leen di woo boo jëlee sa clé USB Mali nga ñëw dugal ñu ne la problème exploitation du fichier éliminé la est-ce que xam ngeen ne carton yi ñu indi def ci ay fiches signé ko ci droit conseil constitutionnel ay juristes ñoo fa nekk ci droit fiche physique boobu nga xam ne dafa am une signature authentifiée moo ëpp valeur clé USB waa léegi carton yi lu muy jariñ damay jox sama xale étudiants yi ma leen di jox exemple ma ne leen mu ngi mel ni rek nga def sa thèse de doctorat wala nga def sa mémoire de master dem imprimer ko defar ba mu rafet ñëw teg ci table bi ñëpp gis ne mémoire baa ngi nii yaa ko bind mais bi nga waree présenter jury bi sa PowerPoint comme ni woon sànq rek nga dugal machine bi bëggee jury bi dàq na la ne may nañ zéro yow doo jàll waa léegi li nga teg ci table bi nit mën ko téye liggéey boobu moom anamu léegi kees yi moom lu muy jariñ suñu ay mandataire ñoo ñu wax ni boo fa duggee contrôle kes yi matul 30 secondes dañuy xool rek diggam defoo ci ay solee yooyu bu ñu paree ay xale ñooy ñëw yóbbu nañ ko déjà salle d'archive que fa ñuy contrôler kees yi sax du fa nekk dëgg la wala du dëgg waa léegi pourquoi ngay laaj nit ñi ñu wër àdduna di bind ay fiche di signer man mii man dama doon remplir ay fiche damaa bind ba sama loxo yi noor waa léegi bu amee problème ci clé USB doo dem ci fiche bi nga xool fiche bi du fa nekk nan nga mën a jiitee lu mel ni conseil constitutionnel di organiser ay élection ba pare tayal parce que tayal laa koy woowee c'est de la paresse intellectuelle xam nga lu tax ñépp xam nañ li xew biir conseil constitutionnel ñun suñu cas bii informaticien bu xarañ lañ àndaloon mandataire bu am fulla lañ àndaloon mais bi ñu defee résultat bi ñu gis ko affaire yi di génn bi mais ñoom am nañ fulla ils l'ont signalé loolu dama bëgg opinion publique nationale et internationale xam ko on n'a pas subi ils l'ont dans un pays normal oui oui dans un pays normal affaire bi bëggee na à quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la responsabilité mais waxal mais lii xale yi am informatique ko encodage nee nañ ma lii boo koy defaale matul sax 30 secondes mais ñu dindi encodage bi defal la sa résultat mais bi ñu koy wax nee nañ ñu Badio Camara en personne moo ne imprimer le PV léegi yow tu veux gérer le destin d'un pays nga ne amoo jot pour jël 30 secondes pour xool liggéey boo xam ne ay milliers de personnes ñoo ko def sur des années et des années tu dis on passe et fou te fous le terme de la destinée des gens c'est une honte le 20 janvier il y a deux dates waaye ma rek ma terminer xam man li may wax bëriwul ko ñaari date moo fi am normalement bu doon dañu respecter code électoral loolu du du ma am temps développé ko fi parce que conseil constitutionnel wax naa leen code électoral dafa am di loi mu ñëw jël sa décision du 24 novembre 2023 ndax ni nii laay organiser parrainage bi am ci yu ci bëri yoo xam ne ni mu ko defee code électoral bi wax un seul exemple bon ñun ñi nekk fii yëpp sinon nous sommes des compagnons de misère ay 60 lañ jël jëm kaw mais code électoral par exemple lu mu wax kii di ñëw nga koy contrôler ki ñëw sànn boo ko contrôlé samedi jox ko résultat am samedi ne ko am nga 48 heures pour ñëw régulariser ki ñëw samedi defaluñ ko c'est leur faute ñu dem week-end dimanche lundi mardi ñu génne communiqué waxuma arrêt waxuma décision waxuma jugement ils ont sorti un communiqué qui n'a aucune valeur juridique ne dañuy bàyyi ba ñëpp déposé ñu notifier mandataire yëpp le même jour jox leen 48 heures man loolu bi may déposé pour ne nañu defaat tirage ma ko contre mes ñi nga xam ne ñoo ma jiitu mais dama ko def pour wan leen conseil constitutionnel ne yemalew leen parce que mënoo jox ñi 10 jours pour ñuy régulariser ñii nga jox leen 2 trois jours pour ñuy régulariser mais loolu c'est une violation flagrante de la loi parce que ni ko code électoral bi waxee ak ni ko conseil constitutionnel defee baaxul léegi nag pour bu doon ñoom dañu respecté code électoral le douze mooy suba suba dañu war a génne en principe la liste de ceux qui ont passé le parrainage ak la liste de ceux qui n'ont pas passé le parrainage suba dafa waroon am décision le douze au plus tard parce que tey man li ñu ma jox ça ne m'engage pas procès verbal kese la c'est pas une décision de justice moo tax ma ne leen ku ma fi bindal ci rëkkale dinaa ko xulóom yow décision de justice boobu nag ni ma leen gisee ñuy doxalee nana ñu ko génne le douze moo tax ñun ñëpp ñu ngi def dama leen ci woo aussi yéen ñëpp requête yi ñu déposé yëpp irrecevable lay doon je vous avertis waaye nag fañ leen di koje ci taatu ndaal le 20 moom le janvier à la kulli ali dinañ déposer la liste officielle des candidats ñun ñi ñëpp ci décision boobu dañuy waxee ne Aminata Touré recalé au parrainage Abdourahmane Diouf recalé au parrainage Bougane Gueye Dany recalé au parrainage à partir du moment où cette décision boobu mu ngi ci décision 20 janvier bi décision boobu ñun lañu attaqué yi en justice j'appelle tous les recalés du monde tous les recalés yoo xam ne ils ont été victimes d'injustice ñu waroon tijji seen clé tijjiwuñu ko ñu ñu wax fichier exploitable ah non ak ñun ñëpp li ñu dal bu génnee décision wam le 20 ñun ñëpp nañu daje conseil constitutionnel le 21 parce que délai de recours bi deux jours kese la 48 heures et on va pas commettre l'erreur de faire un recours parce que day irrecevable on va pas commettre de faire un recours comme ça ñoom ñu toog en 30 minutes ñu créé ñoom dañoo bëgg a tayal dañu leen wax ne doo jiite réew du tayal je voudrais 60 60 recours individuels Bougane Aminta Malick Ben ku nekk na nga wuti sa avocat wuti sa huissier recours individuel ba mu doon 60 fois parmi les recalés ñu déposer leen ko et ils auront l'obligation ci 48 heures ku nekk ñu tontu la personnellement ci sa décision ils ont voulu d'un chaos politique ils sont en train de créer un chaos juridique lii duñu ko bàyyi parce que parrainage bi foofu lay terminer c'est pas un test de représentativité loolu moo ci metti parrainage bi gis nga ku fi ku mu fi neex ñun ñii di animer vie politique ku mu neex nga toog Bougane bul defati dara bu élection yi jotee nga wut dem trente ou trente millions recruter un excellent informaticien mu defal la parrainage bu mucc ayib nga dem jàll tirage au boo amee place bu baax tirage au sort on est de saboter la république ñun nag ñun ñii ñu woowee dañooy recalé gars yi commencé nit ñu woo pour wax koo leen àndal man de Abdourahmane Diouf ba fi ñu toll nii Abdourahmane Diouf Abdourahmane Diouf la àndal dama bëgg mu leer xeex bi nag dinañ ko xeex ba fa mu yem luñ ci am après deuxième impératif bi ku ci mënul amal sa bopp nga ne nag lii fi nekk régime bii fi nekk système bii fi nekk daf fi war a jóge et je lance un clin d'œil à nos amis de Pastef je sais pas ni nga ci salle bi Bassirou Diomaye Faye est un très très très grand danger il est en très très très grand danger parce que ñun ñuy jàng droit xam nañ nan ngay defee une interprétation ba dugal ci li nga ci bëgg dugal